liwi nag dafa mel ne daf ñu yéene naan ci de liwee gi naan bouteille baa ngi nii ndax ma indi ah looy sàmm di nii lan la <laughs> li nga log lan la damay galaxndiku <laughs> ma jigéen ay d'accord ajaratu kàddu kocc comme mhm. tous les jeudis rek ñu koy faral di defee tey nag daañu ko dooree ak nga xamante ni ñu ngi saa njóobu mbay mu fas yéene ñëwal si neuf points yi nga xamante ne ni mhm. euh, Ousmane Sonko euh, insisté na les neuf points de Ousmane Sonko mu wax Sonko yow la <laughs> les neuf de Ousmane Sonko man. yow yow Sa waaw Ndiogou Mbaye yow la ñu. bisimilah abadi koro yi. démb dégg naa la nga si wax. tey saa ah, bu fi nuyoo de. waa di bu fi nuyoo. premier point de la seytaane rajim ah, bismillahi rahmaani rahim. Ah. ginnaaw bu ñu sante yàlla. di nuyu Serigne Sirima mm. woon nga ko sant di Daara yi. ah. kañ nga leen nuyu. yow nag jeudi ci ngay nuyu daara yi di ziar gudul jeex. ci eh, taamu bi nga nga eh. juróom-ñeenti. point juróom-ñeenti. point tomb. Ah. <laughs> yi nga xam ni. Hmm. moom la usmaan Sonko. muy question yooyee yan waa limal ñu leen di juróom-ñeent di ñeenti poñ waa limal poñ poñ poñ tomba baax saa tomba baax bu fi werante poñ poñ poñ saa poñ la saa kaay saa poñ mooy point poñ mooy point man naan eh indi ka ndox mi sang bi wéril jox na naan tey di ngeen na tomb bi nga wax moo baaxoon ah point mooy poñ wax nga dëgg saa naana mu naan je dis ba il a dit waaye naanal waay waaye naanal waay tey dañ ko yàq tey dañ ko yàq saa naanal temps baa ngi dem ngay muusantu ni saa naanal. di la xatal. <laughs> nekk ci kii bi rek dinaa. Oh, waaye gaaw a sa temps des na je dis eh, na saa naanal na jeex. <laughs> saa naanal saa kon damay arrêté kii bi de. arrêté chrono ba mu naan ba pare. saa da ngay naan. mais gannaaw lool. loolu mos lu tax ngay récupéré. kii bi laa waaw reprendre naan naan sax. jeex. jeudi yi. jeudi. xaaral koñ. jeudi koñ. voilà na rees ak jàmm tàddal keneen ah ma taa <laughs> ah dafa jeexal. <laughs> si yow laay ñëw léegi couvre-feu xam nga président nee na daf koy yëkkati yóbbu ko zéro heure ba cinq heures du matin ak naka gisee loolu am ndox mi sotti am jox ko kaas am na kii kii doo teel a tëdd di nga xam ne jox ko luy mu mercredi mercredi na naan mercredi nga xam ne teel a tëdd bi nga xam ne. Eh, teel a tëdd la wax. a tëdd wallaahi. teel tëdd la wax wallaahi tëdd. Eh, boobu kaas dafa ndaw de. am bi luy teel tëdd bi nga xam ni. waaw. njiitu réew mi moo waxoon. Mm. ñu koy teel a tëddi. Mm. ngir moytu jàngoro ji nga xam ni moo ne ci réew mi ajaratu. waaw. loola kay. Mm. bu ko njiitu réew mi waxee. nañ ko ko nangul. luy loolu yow waxoo jàngoro ji ne ci réew mi. waaw ban jàngoro. jàngoro ji jooju nga xam ni. ma nga jógee ci réew moom a nga xam ni. seen bët ya dafa sew. ah loolu lépp. waaw loolu jàngoro jógewul Japon. Japon. fan la jóge Japon la jóge Japon. Japon ah du Japon du Japon borom bët yi tuuti ya. Ah, Corée ah, ah. jógee rek. non non Chine duñ ay tubaab boo ko waxee tamit. tax fa mu fa mu mooy fan. fa mu rek. li ma ci ne li ma ci ñor daal mooy jàngoro ji fa mu jógee jàngoro jooju la njiitu réew mi bañ ñu ci. mu ni dee leen teel a tëddi. bu juróom-ñeenti waxtu jotee. laajuñu waxul juróom eh, na ko. waaw dem na ba. Eh, eh, bu suuf seddee. suuf seddee. bu suuf seddee. suuf seddee waxtu woowu bu suuf seddee. bisimilah ci laaj bi bisimilah ci laaj bi bisimilah. ah. yow yaay tànn tànn. waaw saa lu ci sa yoon lu ci sa yoon jëlu ma. Ah, saa lu gisee Omar la jël demal ci Omar non non saa bi eh, la jidee eh, ma jox la ah. baa ma jox la léegi 300 euh, milliards yi nga xamante ne ni euh, président Sall génne na ko ngir ndaw ñi mooy hmm. jeunes yi ah, <laughs> les 300 milliards loo ci wax ma ne naka nga gisee est-ce que jàpp nga ne moom mooy tax euh, ndaw yi seen liggéey yi ñu bëgg ñu am ko un bu nekk nee na benn milliard. Hmm? nee cent milliards un bu nekk sa cent milliards. pour les jeunes. Eh. ndaw yi sunu réew mi de. Hmm. koppar. taxul ñu yëkkati seen. kàddu taxul ñu def. carte nga wax de carte carte waaw ndaw. carte na daw taxul ñu yëkkati yëkkati seen kaddu ah kaddu kaddu kaddu ah mais am na liggéey kaddu am na liggéey carte nga wax billaahi carte waaw kon waa baax na wax na carte kaddu carte nga wax kaddu carte kaddu maa la dégg carte ah, ah, ah. nga wax waa léegi billaahi wallaahi wax loo wax léegi kaddu moo ne seen carte moo ko wax taxul ñu joxe seen carte kaddu yaa ne carte <laughs> waaw Betty soxna si nga invité woon démb na Afawa li mu jiite na naan. dama jàppul kii bi. <laughs> Khady Fall Tall. la jiite moo jiite kuréel. gi ëmb. ay jigéen. yi nekk ci eh, ah. saw jant. saw. jant saw jant ban. Eh. waxtaanu lu ko lu ko ëmboon maanaam lu waraloon waxtaan wi. suñu réew fi mu féete. lu waraloon waxtaan wi. lu xewoon ba nga invité ko. gannaaw hmm. hmm. juróom ñetti fan yu nekk hmm. ci ñetteel yi weer yi at mu ne dañuy muy 8 mars sargal jigéen 8 mars waaw ah, ah, waaw waaw ajol ah, <laughs> yi da ngaa commencé di def ay affaire yéen a ko répété <laughs> ñi seen seen seen PV yi war nañ koo xool <laughs> waaw war nañ xoolaat PV bi de ñuy waxkat alaaj ñuy waxkat yaa ngi maa ngi wax moom. non non non mais 8 mars bi léegi 8 mars bi ren lan moo tax mu wéet géey. kenn talu yëngu ah. yëngu. Hmm. yi xale yi réew mi. Ah. manifestation yi daal. waaw li doon sa invité yi mujj ñoo ñëw. yëngu-yëngu yi. yan yëngu-yëngu dañoo dëkk bi wóorul woon. lan moo si bi nga dëkk na tudd. Eh, ma jigéen ma ma jigéen nga xëcc ay ay minutes ma jigéen ñetti émission yi waxul. Omar Omar a émission ñetti émission ngi nii waxul. ñetti émission waxul ñetti émission ngi nii. ma jigéen sànni la jëlal bët nga jël ma yow la ñu eh, jël. moom la ñuy jël. Eh, ma jigéen ma jigéen ñun ñoo waaw léegi ñun ñun tamit dañu am droit laaj ñoo la ñuy laaj. ma jigéen na waxee damay nelaw dañ lay këpp ndox mi de. fii. yaa ngi fan. fii mu toog. fan nga toog fan ci plateau bi. jotaay bi. jotaay ba. plateau bi jotaay bii bi plateau bi. waaw hmm. ah. lii ngay àddoo sa kàddu gi génn nu mu ah, li xewoon. tey yow loo xewle. man tey la sama bés juddu. sa bésu <laughs> juddu. sa bésu juddu. waaw. Ah. mais sa bésu juddu. sa yaay tombeek euh, sa maman. ñaanal ma. lu mu la. ñaanal ma xanaa. souhaité na la happy birthday to you. waaw. nu mu ko waxee. ñaanal ma rek xanaa. ah sa ñu dugg ci actualité bi. président tey jii lay ñëw ci la la bëgg ñu def deuil national pour ñu faatu ci manifestation yi lan nga ko noo gisee. Oh, moom de moom. moom man. waaw. Ah, moom kan fan yii moom kan. daa kii kan daa sedd rek. kan day nooyal kan kan kan. non manifestant yow mu yow yow deuil national nga daa sedd. waaw national lañ la wax. daa sedd mooy national bi ni mu bi mu décrété nii loo ko gisee la. sedd rek. deuil bi lañ wax deuil national bi. waaw. kay deuil bi loo ci xam. lu baax la. lan lu baax la. mbir mi mbir man mbir man mbir mi. billet. mi ngi liyaar de te sànq léegi ñëpp a ngi wax. mais bi fi xale dee ci géej gi dañoo wax ni deful loolu tey mu ñëw ci fukki ñett ak nit yi mu def lan la lool. waaw xanaa daa gis wéet loolu. loolu la ne. mooy lu baax ñu def bii. lan la lii luy bii mooy li xew tey. léegi même suba dañu wax ni amaat li ngay wax kenn xamu ci dara ñaan gi ñaan gi la. ah ñaan. waaw. waaw loolu kay yoon la. Ah. yoon la. jeex na nervi noo ko gisee nervi yi. nervi yi. jàpp leen te leen si kaso bi. kaso. daanaka kaso tubaab moo naan kaso yow nga aw la fi kaso. naana kaso naana naana naana naana naana naana naana kasu tubaab la tubaab moo naan kasu. kasu bi kasu bi. kasu. Ah, eh, le temps que muy naan tourné leen ci. ah eh, déet bu ñu tourné day naq saa bi ko naan waaye du ko naan. naan la mu eh, jeex da koy naan mu jeex ba pare. naka def yow. waaw Omar acca jublu yow subee naan waaw naan maa ngi subee ah. naan ma jigéen naanal. ma jigéen naanal naan ñaata kii ko rek la. xaw ma ah ñaata kii ko rek la. xaw ma ma jigéen na jeex. non non Omar fii amul xaw ma de. xaw ma journaliste nga. ñaata kii ko rek saccage ñi saccage Ousmane yow. est-ce que ndox mi jeex na. ma jigéen ma xool jeex joxal gopp bi jeex na waaw kañ vert bi très bien bagage yi tey moom da ngaa maroon dama maroon waaw ci suba dama ko prévoir an naan dinaa naan ndax ak kii rek ak kii mhm. <laughs> may daa Omar yow ñëwal na bul rey affaire ba saa sa dëkk gis nga mm, Auchan bi ni ñu ko def péage bi mel nekkatu péage jàllal la jàllal laaj yi bari na jar jàll jar jàll waaw jàll jàllal jar jàll waaw ah, te doo làmb sa jiba waaw noo ah. ko gisee. <laughs> Omar nag bul ree sa rubrique bi. lan mooy jaar jaar <laughs> fan la jaar jaar jaar jaar te loolu la sa jiba fan ngay jaar jaar la. ci jaarukaay bi. jaarukaay ba. jaarukaay bi bari nañu bañ ci. yëmbal. jaarukaay ban doon fayee. fan la fan. léegi amul fay la. route Omar nag wax dëgg yàlla waxuñu. waaw Omar mi loolu léegi lii lan la. faraluma faraluma di fa dem sax. waaw keroog fekk na la fa yaa ko doon wax. ah romb naa ko. waaw foo romb. romb naa jaay kat. jaay kat jaay la jaay kaayu tubaab yooyu jaay kaayu tubaab yooyu. Eh, eh, tubaab. tubaab tubaab tubaab tubaab eh tubaab Omar tubaab tubaab. eh, eh tubaab. Omar yow journal wala fu ngay def. déedéet déedéet nga bëgg hésité nii yow it. Ah? déedéet déedéet. Ah? ah waaw Omar nag. <laughs> Ah,